waaw li ko waral d'abord il faut comprendre que culture bi nag benn mouvement la bu dajalee ay mbootaay jigéen ñuy yëngatu ci artisanat yëngatu ci euh, culture ak euh, yeneen ak yeneen yoo xam ne daal dafa laal aada ak cosaan euh, nekk ci 14 régions yi ak 46 départements yi li ko waral moom mooy daal di xool ban politique la ñu war a mëne en tout cas une politique culturelle pour sukkali li nga xam ne mooy culture bi culture bi ndax li ñu seetlu moom mooy culture bi dafay faral di des ak artisanat et benn nit comme ni nga ko waxee pour gàttal ko rek ca biir assemblée wala ñaar munuta a régler problème bi euh, day doon ab titre rek ndax deux deux minutes de parole boo ko amee euh, du mën a du la mën a voteloo yenn loi ndax da nga war a contrôler les actions du gouvernement voter ay budget yeneen ak yeneen euh, et on compliqué na 165 places ah, xaw ma nu ñu koy waxee ci olof 165 places ay nit war ko xëccoo xëccoo bi metti loolu ah, buñ ci amee benn wala ñaar du faj soxla bi ndax am na lu ñu dund dundati ko on s'est dit nañu defar sunu programme mu nekkoon nag suñu stratégie daal di koy nëbb nañu defar suñu programme bu programme bi jotee ñu xool ba ñan ñoo ko ciy nangu épouser ci ñi nga xam ne dañuy dem di jonga jongante ñu xaar nag ba nga xam ne jot na euh, parce que bu jotul nga def ko amul sens parce que dañu xaar ba waxtu wi jot euh, ki nga xam ne nangu na ko lire comprendre ko épouser ko ci lañu koy dooga ne xaaral ñu génn fësal ko naam njëkkoon nañu génn wax ne fi mu nekk nii dañu am programme ku ko bëgg a épouser na ko épouser mais ñu ngi doog a am koo xam ne nangu na vraiment lii nga xam ne bind nañ koy ñun ñëpp ñu ñi nekk ñi nangu en tout cas nekk ci culture bi nag parce que du ñëpp d'accord euh, dafay am ñu d'accord am ñu dul d'accord ça il faut pas avoir peur de le dire donc loolu ñoom lesi juróom-ñetti list jii est-ce que mën nga ñoo dëggalal ni ñoom juróom-ñetti yëpp ku si nekk si ñoom rencontré rencontré nga leen maanaam daje nga ak ñoom. Mhm. te bi nga dajee ak ñoom kan ngeen ci tànn tànn. Mhm. ak bi nga leen tànnee lan moo tax ngeen tànn ko. waaw juróom-ñetti liste yi bu dee dañu waxal suñu borom dajewuñu ñëpp daf ci am ñu ñu dajal mëtuñu mëtaluñ ko mais ki nga xam ne moom la ñu mujj waxal te mu jël programme bi liir ko comprendre ko avant mu koy avant muy jël programme bi. dama waxtaan ak moom ay yooni yoon li ne ci biir programme bi ñu waxtaan waxtaanaat waxtaan seggaat seggaat ma daal di ñëw rendre compte gars yi gars ne ah bii de moo gën ndax man dumay jël décision ma damay woo gars yëpp ñu daje bu ñu dajee gars yi lu majorité bi wax rek ñun dañuy faral di ut consensus madame Aminata Touré nekk tête de liste mouvance présidentielle moom moo ñu gën a déglu gën ñu jox bopp boole ceeg ñu nag ñu dégluwaale tamit discours yeneen leaders yi ñan ñooy vraiment ñan ñoo ci porté euh, politigu gu euh, culture artisanat ñan ñoo ko maîtriser ñi nga xam ne dañ ko def seen programme comme ça et vraiment déglu nañu ci la ñu ne ah madame Aminata Touré mii kat mën nañu liggéey ak moom ah pour jox ko majorité pour que ñun li ñu bëgg ci damay joxe benn ka ay sodave li nga xam ne moom mooy copie privée ndax ca assemblée rek ngeen koy voté euh, voté nañ ko mais appliqué guñ ko li nga xam ne moom mooy euh, comment dirais-je encore statut de l'artiste voté nañ ko mais appliqué wuñ ko te loolu yëpp assemblée ngeen koy jëlee mu des yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen on s'est il faut intelligent et partir ak ki nga xam ne yaakaar ngeen ne ñooñu dinañ am majorité donc ab jeu boo xam ne da ngeen di dem euh, soobu en tout cas dinañu doon góor yooyu nga xam ne essayé nañu pour seen réew pour yéen caméraman yi journalistes yi animateurs culturels ay euh, les ingénieurs de son éclairagiste mmh. Aminata Touré bi ngeen daje moom mooy euh, tête de liste bu coalition bu mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar bi ngeen daje ndax rassuré na leen ak euh, est-ce que ñoom bu ñu demee assemblée nationale am ngeen yaakaar que li ngeen di xaar daañu ko def. xam nga euh, kenn ku nekk dafa am nooy faral di liggéey euh, man sama bopp maa dajeek moom du benn du ñaar du ñett discuter ba mu wóor ma ne point yi taxaw na mu ne ma ah mu ne waaw ñu doog a ñëw toog waxtaan ci programme bi. waxtaan naa ci aussi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñoom parce que booy faral di dugg Casamance lu bëri am nga tamit ñeneen ñu fa nekk bu ngeen bokkee même vision parce que Casamance dëkk culture la ku ci mel ne Doudou aussi daal di ne ah bon ñu ne waaw ñu ne ok dinañ jéem xool bu ñu amee majorité yéen def leen ba ñu am majorité rek déglu na madame Aminata Touré parce que moom mooy nag moom mooy tedd liste mënoo dem seeti ka nekk ca taat ba non waxtaan boo gis day defay day yenu maanaa et vraiment nekk na koo xam ne déglu na te su dégluwul woon aussi j'aurais l'honnêteté daal di ne ah dégluwoo sérieusement mais moom déglu na liir na xool na d'accord na déglu naa ay discours am avant may waxtaan ak moom pour xool réellement est-ce que kii li muy woote dëgg la wala du dëgg parce que j'ai écouté les autres leaders et mooy loolu. Euh, dernière question bi ci wolof mooy euh, tey jii kon mën nañu wax ni culture bi nag signe de vote koy joxe ci élection yi. consigne mooy euh, consigne de vote mooy ñi bokk ci yéen ñu voté coalition. te nangu ko mais bien sur loolu moo tax ngeen gis image yi ngeen fi gis sànq fu nekk wër nañ ko daal di ne leen téyendi leen seen carte. moo tax ngeen gisoon ci internet bi ay acteur culturels ñu bëri daal di ne man sama carte culture bi nag moo ko moom c'était pour xaar bu culture bi nag jotee joxe consigne de vote ñu daal di ne voté leen ma Samba wala ma Demba wala ma Paate et finalement on a choisi de voter pour la tête de liste Aminata Touré ak benn Bokk Yaakaar pour pouvoir euh, mener une politique culturelle baleen ma ci français yi ni ñu ko bëggee Euh, fële ca assemblée comme yeneen i loi lu ci mel ni copie privée ñëpp mën ci gis seen bopp parce que amul chance benn baabaam di dem fa taxaw wala Masamba ma dem ba deux minutes ngay am ñu dagg la majorité bi amoo ko voilà